ndax moom ngeen ko. mais jëloon kàlla moom àll kàlla moom. àll kàlla moom. man mii ro. Habis. mu ngi nii toog ñu ngi koy ziar maam buubu waalo ak liiru waaw moom ndeysaan mbëru réew mi ah. ñoom majji majji gars yëpp waaw bu ma limee dinaa juum mais nuyu naa staff écrit wàllo bi yëpp ah. lii biñ koy initier Lamine dañ ne woon waa làmb ji ak koor gi mais tey vraiment yaakaar naa ne mën nañ ne bu doon euh, dañ ci wut pour cent am nañ ci 80 pour cent parce que woo sa ay nit ñu ñëw ngeen toog nga jox leen ñu ndogu ci mbër bu mag defe naa li tamit royukaay la ci ku nekk bari na nag ñu koy def mhm. mais vraiment ni nga ko defee nii tey macha allah mhm. kon loolu daal nekk na loo xam ne ah. ñu ngi la ciy jaajëfal jox nga ñu nag loo xam ne tey parce que da nga doon su ngeen ñëwee di ngeen lekk ba daw <laughs> mais macha allah décor bi moom. Ah. non maa koy door a gis quoi vraiment. Ah. merci beaucoup Babacar. Ah. xam nga tey boo nekkee ci écrit mhm. say mag tàggat la. Mhm. say papa tàggat la. Mhm. lu mu bon bon bon bon da leen war a delloo cër bi. te man aw ma lu dul écrit waalo. aw ma lu dul samay xarit. ñoom laa fowandoo ñoom a tàggat li ko mel ni comme grand ron. grand Mambu. grand Lirou Diane. Aline Seyde. Majj Majj waa Ikri Waalo ñëpp ku lim juum. Abdou Diouf sama grand. maa ngi koy ñaanal yàlla. yàlla may ko wér a gudd fan yokkal ko xewal gu bari. mooy li ma wax rek ak suñu papa père Ali. ñun amuñu lu dul waalo. kon donc bu ma defee actu bu mel nii rek. delloo leen njukkal. ak coono gi nga xam ne maa ngi leen koy teg. coono gi ma leen di teg. moo tax ma wóoru leen defara leen ndogu bu mel ni baalu leen àq ci coono nga xam ne maa ngi leen koy teg daal loolu moo nekkoon sama objectif tey waaw kon yàlla nañ yàlla boole jégal ñu ñëpp te nangu yàlla amiin amiin amiin waaw ginnaaw bu loolu passé nag ñu ñëw ci koor gi uh-huh. lak ak koor gi uh-huh. koor gi noo koy dunde waaw koor gi moom uh, mën naa ne neex na parce que dafa nekk li nga xamante ne dañ cee war a jaamu suñ borom uh-huh. parce nga ci toog benn weer boo xamante ne da nga ciy fas yéene jàmm suñu borom dëgg. Mhm. loolu fa nekk loo xamante ne lu rëy la ci mhm. bépp joomu jullit. Mhm. ah man de maa ngi ciy wóor. di ci ñaan yàlla yàlla na yàlla nangu sama koor. nangul bépp doomu aadama kooram. tons tam maa ngi koy ziar moom mu ngi suñu ginnaaw moom itam waaw moom suñu conseil la sax tons maa ngi lay nuyu <laughs> yaa ngi si koor gi uh-huh. di ko def comme ni ko jullit yi defee mais li ma lay laaj mooy Lac de Guiers 2 mu xàmme ko ba tey comme ni ko gars yi waxee wooru gàlle ak Lac est-ce que mas naa am <laughs> man xamoon naa dig ma laaj loolu <laughs> Babacar xam nga dama yàgg di suivre si émission ah. man ne Babacar dina ma mus a laaj lii waaw ah, mais Babacar boo nee boo nee jamonoy jamonoy xale mm-hmm. bi âge ñu yor nii mm-hmm. xam nga ne xale moom ku ci ku ci nekk rek man moom sama wooru gàlle moom nekkul woon dama doon juum parce que fois damay jékki-jékki may jàpp may def dara bi jékki ndox ba jàll damay bañ kamara kamara yu sumi ma loolu laa ciy bañ <laughs> juum la wala da ngay def non boobu damay juum ah. damay juum damay yaakaar ne euh, nekkuma ci koor may jàpp rek teg ndox bi rek jàllale ko mu jàll te bu jàllee rek beneen affaire lay doon kooku juubala mais après damay obligé dem sam pap naa ko eh pap naan naa ndox de mu ne ma yaa ko tey ma ko déedéet tey ma ko de mu ma nii waaw war mais après di ko fay. voilà ko waa d' accord. Mhm. waaw kon noonu daal noonu nga doon wóor ah, wóor man daal noonu laa doon mhm. juub nag. Mhm. waaw waaye wóoru gàlle moom. am na loo xam ne ah. moom dinaa la ko laaj mosuma koo laaj kenn depuis ma commencé affaire ba tey. mais nag dañ la ko laaj. mooy lan mooy ay jullit lañu. nga nekk mbër nekk champion di woor. Ah. doomu maanaam nit. wala jullit bi dugg si weeru koor di ko woor hmm. ban comportement la amee ak ban doxalin la war a doxe diggante mag yeneen doomu aadama yi mu nekkal ak ñi mu dëkkal ak muy partagé dundam waaw benn bu njëkk moom mooy nga maanu maanu ci lépp hmm. parce que jullit moom hmm. pour man maandu mooy lépp première bi waxtu juróom yi doo ko tardé di génne ay ndogu boo ko mënee di ko génne di ko jox ñi nga xam ne dañ koy yellool mhm. wax ma ñu koy yellool ñi nga xam ne dañ koy yellool mhm. nga yëkkati jox leen mhm. parce fa nekk li nga xamante ne dafa baax ci doomu aadama di jox nit ndogu des fois damay gis gars yi di ko def mu nekk loo xam ne dafa may marqué ma xam ne ñii li ñuy def nii ñoom ñu ngi koy def mais xam nañ bu baax li nga xamante ne mooy suñu borom fay biñ ci am ñoom moo tax dama koy rafetlu Mm-hmm. waaw mm-hmm. beneen bi des léegi loolu moom alhamdulilah sant yàlla noonu nga ko wax yaakaar naa noonu la war a demee noonu la war a demee noonu war a demee mm-hmm. li ma lay laajaat mooy yow en tant que mbër athlète say say coach sa ngi nii toog boo wooree nekk si weeru koor ak lag de Guiers bu wóorul est-ce que entraînement yi maanaam ñooy bokk noo koy doxale non day wute day wute parce que da nga ne koor koor lépp looy de man moom man man sama wàllum bopp ba ma toogee ak sama boo wooree. Mhm. da ngay bàyyi ba dog. Mhm. boo dogee ba pare. Mhm. nga naan lu tàng lekk lu yem. nga dem entraîner. mais boo demee entraîner. la nga doon def par rapport que boo wooree ak boo wóorul. du bokk. du doon benn bi. wàññi. ndànk ndànk ba koor gi jeex ba koor gi jeexee nag. nga toog une semaine boo xamante ne ba yor même rythme bi mais rythme boo ko yor. da nga koy yokk ndànk ndànk. di ko yëkkati di raay tuuti di ko yëkkati ndànk ndànk doo ñëw rek brusquement ba koy yokk. parce que boo ko defee da ngay gaañ sa bopp. da ngay di koy yokk. ba jëlaat rythme bi. Mhm. nga enchaîné ak moom doo continuer kon daal kon lag moom su ma ko déggee am na médecin am na écoute sam kon moom professionnellement lay liggéey li muy def. ah man man noonu laay liggéeyee. Mhm. parce que du ma ñëw rek brusquement rek. enchaîné enchaîné ko noonu. Mhm. jóge en ak ah, jóge nu sax entraînement. boo ñëwee tam da nga war a di récupérer. surtout récupération bi dafa baax ci doomu aadama. dafa baax waaw récupération bi baax na trop. waaw kon loolu moo nekkoon phase su